asalaamualeykum. Alaaji Fadam. asalaamualeykum. waaleykum salaam wa rahmatullah. wa taala. Fadam. Alaaji nekk ci néegi Afrique Fadam dimanche ba léegi yaa may daw. déedéet daw ma la. Fadam dimanche ba léegi yaa may daw. waa Nees. waaw ah. Nees da ngaa sarak mi Siteu mu jàkkaarloo la. non dama ne dimanche ba léegi yaa ngi may daw te li nga war wax ci digg ba lan da ngay sama nit di sama xarit. mooy lan. Fadam dimanche bi passé lamb lamb maanaam dama la dubi keroog ñu du kon Fadam léegi nang nga ne Siteu mën naa bëri ñëpp. dëgg la nangu naa ne Siteu mën ci mi. na ci gi muy am wala amul. dëgg la. xeex nañu gos gauche bi dal na wala dalu ko. dal na ko waaye Lac de Guiers tamit dund ko ay prix. defal naa ki de loolu mënut a ñàkk le pëlseur yi waaw la ñu wax. mais dama laa bëgg xamal damay tënk rek ne la ndax léegi nangu nga ni Siteu mën naa bëri ku nekk waaw wala déet. nee sekk ca néegi Amérique Siteu mën naa bëri ku nekk ci àdduna. kon jeex na foofu rek laa ndax fii may wax ak yow nii am na promoteur yi bëgg dem ak. am na ab beneen bu gën a ñor boobu taxaw na ñii. benen bu gën ñor dama la bëgg xamal ne la pour nga nangu ndogal bi amateur yi nangu ndogal bi moy fiñ ñu toll nii ci digg lamb Sénégal Ndiaye mbir mi takk ngemb ci tala dina seer tay hmm? déggoo ma de. dégguma la de. doire zare nak ñëpp ci yam fu mu ni tay ni mu ni ni ci Siteu dina ci mbër bi takk ngemb ci digg Sénégal Ndiaye. Hmm? ëpp dama lay dama lay jox ben message. keroog bu ñu defé ëpp press ki ba paré waaw promoteur mag woo ko pour jox avance mu ne ko mukk man dama yaatu ginnaaw mun ma jël ñaari mm. avance. Mm. mais El Hadj fanam kéro lamb ji nim mu lo ci wax. waaw gis naa ne ci te mujjewul puso bu mu reer way Lac de Guiers numéro 2 ndeysaan mom tebi ñew na and ak ci te ñu def lañu waron def yépp mais nes man naar naar yaa ni nes nan nga gisee digënté combat ci te ak la de Guiers numéro 2. ñi féliciter la de Guiers 2. diko mm. wax ne ko nit ku baax la ndax tay ji euh mën nañ li Siteu def ci làmb yëpp tey moom moo ko feeñal ndax moo ko may loxo. Mm-hmm. moom moo ko may loxo ñu ngi ko ciy félicité nag grand bu baax la. Mm-hmm. def na yëfu ndaanaan wàcc na maire sans rakam. Mm-hmm. di wax ñu si daan ñëpp ne ne du ko reew du ko xamadi. noonu lay bëree ku ne xam na ne Balla Gaye 2 keroog ba mu tëjee janoog Tyson nee na ko ñàkkoo te maa ngi ñàkk wax na ko lu nekk ba Tyson bi ñu def bi kenn dafa gedd loolu ci làmb la bokk. Siteu du ko xamante Siteu Baye Fall la Siteu taalibi la boo xamante ni nit ku yaru la. Mm. waaye bisam boo ko jëlee non non non bëri moom yombul. Mm. avant ak ci bis ak booy dugg si làmb ji booy génn si kër ak supporter àll bi yëpp moom moo toll noonu. Mm-hmm. kon suñu rakk jooju ñu ngi koy ñaanal yàlla suñu borom li de si carrière mu set wicc di wax daal fi may waxee yow ni mi ngi ci loo bi na te it moom la ñu yàlla ci Siteu egsi na egsi na donc liñ koy conseil di ko ñaaxaat mooy ne yokk dooleem yokk jëmmam ci kattan te xam ni lam la ci li mu jógee la mu jëm moo gën a intense waaye nag xel dal na ci moom ndax mbër mi nga xamante ni moo gën a naqaree bëreel moom la Siteu tey tenir tey kon ñu ngi encouragé la de guerre deux di ko ne ko champion la wax dëgg yàlla ndaanaan ku lu fadlin la mais tey ñi ngi invité Matar Matar rey na ma ay waay waay waay faram foo jëlee mi ak kii waay Gabriel waay waaye waaye Gambien ma Gambien la laa bëgg nee ma laajal nees. mais man lii sa nees mooy Siteu ak Lac de Guiers numéro 2. waaw dañoo bëree pare coow lu bari. waaw. <clears throat> Siteu àgg ca ngeen bu Lac de Guiers numéro 2 seq ca gañe ko ak ca gannaaw. wàcc di ko wàcc non non wàcc di ko xari non wàcc di ko xar da ko doon xari yenu xar. da hmm? xari wàcc dem di ko teg di xari. la dafa nekk naan te bët dem ba raam ba tëdd mais mais doon jóg. li ma la wax ne la ne la moom fausse maigre la Fara war nga ko gëm fausse maigre la. te it ma wax la benn secret bu yëgul. nii mu tey du du du coobare boppam de si si te ñun ñoo ko téye dañ koo téye mais si te kese kese kese kese ku dul la dëgg de faalew la. Hmm? mais làmb mooy toll xam ne dangay dem ba boo tolloo ci benn niveau bi da ngay gérer nag gérer parce que Bourgueul maa ngi koy remercier Bourgueul wax na wax na avant combat bi lu yéeme te gars yi bàyyi ci xel. Mhm. donc làmb ji la loo xamante ni promoteur bi merewul Siteu la de guerre nag euh, gis naa benn faay boo xamante ni man dama koy encouragé di ko nag bu mu découragé euh, bu loolu bu mu yàq dara ci carrière am làmb moo baaxoo noonu na xoolaat boppam xoolaat estafam xoolaat ñu koy jàppale ndax keroog mbir mu toll ni moom ak li gën topp keroog néew na lool loolu nag da koy defaraat moom moo koy defaraat moom kenn mu ko defaraat bu mu mere kenn làmb la donc ñëw na def li mu def lépp moom ku ne xam ni may nam loolu la bu leeral du dem wax na ko donc du. nee na lan moo mën a déggee. moom wax nako mom neena bu leerul du dem. ta àdduna ta àdduna non àdduna lepp ay risque la. àdduna mm-hmm. noonu lepp risque la bu fekkee nango jël risque nak ay doga am ay surprise. te Fadam la nga waxoon dëgg la seetaan naa si estati da nga woon premier song bi waxuñu la <laughs> la di daan ay ay Fadam yow lan la lii da nga ko nàmp wala da nga ko doon say maam. <laughs> ndonu la nda maam ndonu la fadam li ma jaaxal mooy dafa la fekk am jom ñu xa xamante Kër Masar boobu dara du nekk woon dara nga xëy fajar dem di wuti teraanga ñëw di andi sa kër xam ci lu bare bari xam sagar ñi naam faram daa mën a sañse mais sa faram sañseetul léegi li mu sol sax xamu ko faram li mu xam mooy sagar semise ak jin assuré rek la xam mais nag mais léegi kilifa la waaw loolu de la. waaye bu doon wax wax di gàttal mooy lamb jë bëri nga ko te ñëwagul. waaw mais euh, Siteu bi mu bëri lu rëy lii la de guerre numéro deux. Lac de Guiers tamit bëri Siteu lu rëy bi ak la ca nekk coow la combat bu diire ba sànq maa ngi dégg père Maxime Bargane nee na dugal nañ recours pour foo xam ne nii mooy bi Lac de Guiers jéggee saako yi bi yooyu yëpp noo ko jàngatee. waaw mais li ñu gis rek lu ne fànn kenn ko jeex. Mhm. lu ne fànn kenn ko jeex lu ñu gis la rek Max Max li mu a def rek mooy mooy rôle ko kon kooku Max ku ne xam na ni moom day topp action te loolu mooy rôle am bu ñu faay bu ndaw dañ ko exploité. liñ Siteu félicitation di encourage la de Guiers 2. mais nees fan ngay yóbbu Siteu. Balla Gaye 2. dégguma. barke Alaaji Malick moom lañ bëgg. Balla Gaye ma la waxoon mënoon daanu daanu daanu daaneel. billaahi wallaahi taala moom kese lañ soxla. ndax kooku mbaa Balla Gaye di def soxla ko ba. li ñu soxla non li ñu soxla li Siteu soxla Balla Gaye ci Balla Gaye la nekk. lan la soxla lu nekk mooy kuy tëb di tëb di jëli di bëre di bouger di jaxasoo. ci mbir ci mbir. waaw waaw ah, Balla Gaye daa xajam. no non non ñun loolu lañ bëgg. Hmm? Siteu loolu la bëgg Balla Gaye la bëgg kese ah waaw. nees ngeen di la bëgg. waaw mais loolu mooy yoon làmb ji lu fi ne leneen. ak ci ak na ci gaw gaa yi de. moo dàq fecc moo dàq signature moo gën a taar moo gën a taaral bis. Euh, Siteu xam nga ni quatre heures la génn këram six heures la ex xam nga ko. waaw loolu am na mais nag nees nees fii may wax ak yow nii am na combat boo xam ne nii jot na ay formation yu leer nañu ne ñu ngi koy doxal Siteu mooy si tàkk yi. waaw euh, Siteu li ñu naan euh, li li murid di yaay choisir maanaam nañ actuellement kenn Balla Gaye nangu koo jël non non ban Balla nangu koo jël bal daa mën a bay yow te doo di xanaa dama laa juñu dara dama man maay wax ak yow ëpp presen ci guddi am na promoteur bu mag bu ko woo bu ko jox avance non dafa ñëw indal ko i sec bi non waaw ñu ne ko moom dafa yaatu ginnaaw loolu loolu mënu ko ko def léegi boobu ci lii mu ma la jëm mais Balla Gaye de surtout nii mooy combat bi bu fekkee ne bu fekkee ne Balla Gaye dafa nekk ci beneen contrat nag diggante moom Ama Balde nag ku la wax contrat boobu ndax Balde ci boppam moo ma ko wax Ama Balde moo wax ne pare na pour may sans cité. non du may sans. Gris Bordeaux. non non nee na pare na pour may sans bu ñu may sans lu may sans. waaw Ama Baldé Ama Baldé cité du may sans. du may sans waaye Gris Bordeaux. Gris Bordeaux waaw waaw bëgg may sans. waaw non non non non. Gris Bordeaux waaw mais Ama Baldé du may sans cité. déedéet déedéet. wala yéen Balla Gaye leen gën a. mooy ah ñun daal kuy tëb lañ bëgg kuy jeex tàkk bëgg la làmb jeex ci minute kooku lañ soxla. looy hmm? xale bi day busulu xale bi day téye sa day déetee sa loxo daw manuel billahi beregul ak sa sa day xat jeppet dalay kot daw daano ah, cëm la ilaha illallah <laughs> en tout cas euh, li yalla def ni moom yalla def na ko fadam mooy hmm. actuellement challenge bi Siteu la ak ah, challenge bi ciow li mu ci moom wax deug yalla fadam gàcce ngalaama Siteu waaw waaw ko xol 2000 2000 2000 2009 ak léegi ci lamb hmm. fi mu ñu koy ñu ngi koy ñaanu yàlla vraiment. macha allah ñun moom wax dëgg yàlla ñun. comme jëm sax làmb da koo soxla pour mu ñëw ko ndax daa xaw a wéet. non non non mais non mais. non mais gars yi gars yi loolu yàgg naa ko wax gars yaa xale yi jéeg man de am na promoteur bu ma woo di ma wax Franc ma ne ko su bëggee ma ma ma ko sens. kan lay waxal kan. <laughs> gars yi na kër yi nga xam ne li gaa yi na kër yi jóg. du nees mu xees mi ma gis de nees mu xees mii ma gis ma jàkkaarloo. mais barki Serigne Babacar si ku la Franc naaxee xam na dama yaakaar ne gisoo fa bravo Franc yi. xoolal xoolal kër yi xoolal kër yi. Ripa Thierno Ka li ki li mu bind nii Ripa Thierno Ka Thierno Ka dafa gaañ. loolu yàgg na. ah Lamine Diouf Ripa Thierno Ka. ndeysaan baara pirke ngi noonu ak mën a tëgg laa ilaha illallah xoolal xoola xool gaay kër yi kambaay bi ma tudd xool gaay xool gaay barki Seydina Muhammad looy wax ba nees ba jël franc mi bu la naaxee dama ragal nga tedd ci ay loxoom ndax ne sa teeb yi ma gis nii mënatoo bëri de waaw moo tax euh, waaw moo tax moo tax euh, euh, moo tax moo tax yaa ay dër non waxuma dama moo tax may la xamuloo parce que ñàkk xam li nga dafa bari fadam fadam maanaam euh, caatu ceek lañ la wax. waaw xool xool kër yi. waaw xool kër yi. xam nga sànq lu ma ma lu ma rey ba ma dee. waaw damaa gis gàmmee bu dégg wolof. ak kër dégg wolof. nan ñun nan ñun zam-zam. <laughs> ba pare ba pare Fadam dégg naa ambassade tukki naa. Ah. waaw waaw man de na Paris tey. yàlla yàlla yàlla defal defal jàmm mais am na mm. combat de. waaw Bordeaux ma gis léegi ñàpp la def. Mm-hmm. waaw faram maa lay bàyyi comme yow. mais ne balaa ngaa dem balaa ngaa dem bëgg naa nga wax sénégalais ne ci carrière du Siteu yan combat moo nekk combat yu raisonnable. li may lay wax maa la koy wax amul carrière am kii dama la Fadam waxal yéen waaye la tax yéen Fadam yéen la tax yéen ngeen ragal léegi si peut-être ba du ngeen wax dëgg. Siteu fi mu ne challenge bi mbër mu bëgg xaalis VIP ku ci bëgg xaalis moom ngay il faut ma teg loxo du may sens moo leen gën a te nag ku ci waajul sa bopp da lay weer de da lay weer ci stade bii da weer dina duy loo xamante ni keroog ci bu ñu doon fay cent millions euh, dina jar vingt millions maa wax ak yow ku ci jël lay xoolal sa bopp. Hmm? da lay weer de. yow gëm nga ne Siteu mën naa weer Ama Baldé. waaye bàyyi mbay nga mën naa weer yow dëgg nee na actuellement mooy le mooy le lutteur euh, bi gën a populaire ci euh, digg Sénégal. Hmm? ah. ok mooy lee fadam man nees dama yaakaar ne da nga fàtte Ama Baldé. boo demee ah, ba gis boo demee ba gis te di ko dur ci kaw Balla Gaye numéro ba Balla Gaye kooku mooy kenn daa wax ci Balla gi numéro 2. loolu yëpp wax moom nee naa moom mooy ñëw bëri ci minute te si de loolu bëgg nee na ko waaye lan la gerte waaye mais grand yaa ma yaa ma nekk niil noonu. <laughs> si de loolu. dalay weer. laay laay laay. nee na ko yaa ma nekk yaa yaa ma alaaji Fadam bu subaa jàmm. jërëjëf alaaji nees mu sekk bu yaay kekk alaaji nees sekk taalibu a Abubakar Si